mën naa ko tontu déedéet. doo bàyyi ko tontu tontu tontu ok dama laaj tasawuf lan lay firi ma tasawuf dafa am firim bu muy firi ci luga am mhm. firim bu muy firi ci waa tasawuf ci boppam. Mhm. addina ak ñiy dégg de ati bismillah. ak lu yëpp tasawuf léeg-léeg ñu firee ko am ñu ko askaralee ci suuf suuf mooy benn yére buñ daan sol bu am coton bu weex ci luga. Mhm. foofu la baax mu ngi ci suuf. lañuy sol ci ay yëre ay nit yu dëgg am ñoo ko doon sol ci lu ma. déedéet du loolu de. bëggu ma ñëw xool saa yi dëgg ma rek. loo mhm. xamul bu ko wóor parce que xamu ko. léegi ñu ne taxaw ñu jóge ci ahlu mhm. ñu jóge ci ahlu bu nekkoon ci jàkka yonente bi sallallahu alayhi wa kan moo leen jiite woon. te nisba boobu te nisba boobu ci luga du wër. parce que tasawuf soo ko. yow nag dugal foo xam ne foofu sax laa la loo foofu a ko. déglu isaasa. déglu boobu mënul wër parce que tasawuf bu fekkee da ko bëgg a delloo xamante ni moom ñooy ahlu ci sufa na nga safa boo xoolee tasawuf dëgg dëgg dëgg moom mooy lubsu suuf. lubs as suuf mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo doon sol ay yëre yi nga xamante ni yëre yu am coton la ay yëre yu nooy la ay yëre yu oyof la loolu moom mooy nisba bi dégg-dégg ci luxa léegi boo ñëwee tasawuf nag ci suuf ya ñoom lu ñu firee tasawuf mooy ay doxalin la ak i teggin yoo xam ne nit ki da koy doxee solo lu ko yëg yëgam may nga xamante ni mën na teggi sharia jaar beneen yoon boo xam ni ñu tuddee ko baatin tuddee ko xaqiiqa ne waa yoon boobu ku si jaar am na fooy àgg ci jaamu yàlla wala fooy àgg ci martaba bokk ci martaba mën nga bàyyi yenn xeetu jaamu yàlla yi nga tënku ci xaqiiqa loo xam ne yow da nga koy xam sa diggante teg sa borom te. léegi du lool du loolu baal naa la question parce que du loolu soo ma mayee ma leeral ko wala ma jàll. du nii du nii waaw yaa ngi non question bi gudd na may ma parce que euh, temps bi ñun du ñu xaar. dama leeralagu ma dara fii leeralagu ma dara déglu ma may leen ma waa léegi waa léegi wuyu ma. naa la doo ko tontu may ma ma continuer baal naa la question baal naa la ko. léegi naa la ko baal naa la ko. baal naa la ko léegi may ma ngir yàlla. xam nga yaa may laaj maa lay tontu. waa léegi may naa la. waa léegi baal naa la question bi baal ma continuer. ok bisimilah non non tontu xam nga tey ay baal defal ndànk man damay modéré rek defal ndànk yaa xii wala bàyyi bàyyi bàyyi jarul ñu ciy wax day gën a guddal bàyyi ah, ma ko bàyyi ma ko da ngaa ñuy waxtaan duñu indi ay yenn mooy ay moo baal naa la ak yooyu yooyu amu fi ñun dañu bëgg eh, la wax xam nga yow da may ma wax te boobu léegi maa ngi leen di may seen dama lay may nga wax wax defal ndànk wallahi vingt minutes xaw ma da lay may hmm. ba léegi tey yow da nga da nga ñëw dugg ci wax mu ne la indil xadis bi nga wax ko moom d'accord na ne tey indil xadis bi yow nga jàng ko ci arab mhm. léegi yow ba tey nangu indi xadis boobu noonu beneen moom mooy wax naa leen dinaa ko indi waaw léegi si li nga xam ne seeni tey moom mooy ci wàllu tasawuf tey maa ngi gis nag ñu ngi mute commentaire yi te commentaire yi taago ñu ngi dalal dalal yaaxi dalal dafa ndànk léegi li nga xam ne seeni tey moom mooy maanaawu tasawuf tay loolu indiwuñu fi maanaam tey tasawuf ba xam si diine la bokk maanaam tey doxalin bi lolou moñu fi indi ak yow ni nga waxoon si vidéo bi mu laaj ay question na la ni wa kay nga la di lay tay li ni tay ikhlas la sank sa da nga indi ab hadith bu nga xamne suñu tay hadith bobu wa wa waaw Oustaz Younus ci débat bi té nga bàyyi yow bul jël sama temps yow it Alpha jël na sama sama 30 minutes yow nga bëgg a 30 minutes kèn la fi wax légui du ngeen ma bàyyi mo wax bu len bu len may raison kat ñi nga xamne li lañ ma doon wax de parce que gars yi dañ ma doon wax duñ la may fooy waxee bu leen leen may raison may leen ma wax may dégg est-ce que gars yi ci suuf ñu ngi may dégg yéen a may dégg wala bindal leen ma ndax yéen a ngi may dégg mu déet. ma doog a continuer ñëpp a dégg jox nañ la temps man dugg naa sax jox naa la temps bismillah waxal. acca bismillah léegi nag chronomètre man maa ngi chronomètre fii. chronomètre leen ma parce que wax ngeen lu bëree bëri bëri suñu waxee yalla rek tax ak yalla mi ñu tiim Oustaz Alpha mayna ko lopp 30 minutes ak yalla mi ñu tiim ñun ñep war ngeen ma may au moins ben 30 minutes su ngeen paré dajji leen lepp d'accord nañ wa légui lu ngeen ma may baax na <laughs> waaye daal li bëgg léral leeral naa ko leeral rek légui damay ñëw ci kon hmm. alaamaatu tasawu asufiyuni borom xam-xami suufiyanke yi kenn ku ci nekk boo ku ngeen dégg ma tudd turam danaa indi téeréem wax lan la wax ci tasawuf ki may njëkkee mooy ibnu taymiya rahimahullah ibnu taymiya danaa indi li wax ci tasawuf dinaa indi it ibnul qayim al juzi asan li nekkatul débat asan yow mënoo indi sa définition tasawuf non xaaral xaaral asan asan yaa indi say définition indi loo ko dalil dama lay wax mais dafa sax ci islam dama lay wax ñu ko saxal wax la fi mu nekk ci alquran ak sunna wàcc débat bi Assane yow yaa commencé wàcc débat bi yow lu ñu chartante mooy da nga koy indil preuve loolu lañ chartante yow Assane nga ne tasawuf mooy ixlaas waaw dama lay limal ñi nga xam ne dañuy indi preuve waxaar bu ñëw waxaar bu ñëw tasawuf mooy ixlaas dafa am ñu ngeen gëm yéen ma bëgg leen a indil ñoom wax no xaaral balaa ngay indi loolu yow li nga wax. am kon rombaguñ foofu. non xaaral da nga ne tasawuf mooy ixlaas ba léegi amaguñ ci preuve nga ne tasawuf mooy istixfaar ba léegi amaguñ ci preuve nga ne tasawuf mooy asalaatu ala nabi. ba léegi moom laay a preuve. waaw moom laay ñëw. nga fa la jot ne eh, eh, déglu déglu Oustaz du ma la may ma la ko ko may du ma la ma la may nga déglu déglu. déedéet Oustaz Oustaz Oustaz. nañ taxee maandu de dañ leen micro alphabet Oustaz eh Oustaz. oustaz dama ne la preuve yi nga ne amul istixfaar te ma wax bi astaxfirullah lan la ñuy wir da wir da lan la. lan la tarixa yi di wir da astaxfirullah la. mais mais lan mooy preuve bi ah. nee naa la ah, astax. léegi lan la waa tasawuf di def lu génn alxuraan comme que doo ma déglu man ma lay laaj bàyyil ma lay laaj man. léegi lan nga gis waa tasawuf. mais lu ma lay laaj da nga ko tontu téeméeri minutes. cent trente minutes ba pare te doo ma déglu xoola dañ may déglu xoola gis nga lii. da ngeen may déglu àddina yëpp ak may dégg lu am ci al kii yi ngeen ko ñëpp xam nañ mando bi fu mu am ak fu mu amul da ngeen may déglu moo leeral li ma bëgg a leeral du ngeen ma wax jox sama gémmiñ gi du ngeen war a wax ndax li ngeen ma leen wax loo teree ma leen ko dama leen di déglu ngeen di wax yi dama lay yi e eh, wuy ma asar xaaral asar xaaral asar danga tasawuf nañ teg mbir mi ci xam yi nga borom xam-xam yi addis ci lañ nekk mais borom xam-xam yi laa lay limal ba pare wax la luy wax ngeen ko def nga def étape boobu li nga wax dafa da nga tasawuf mooy ikhlas ana sa preuve ni tasawuf mooy ikhlas waay waay lii lii du débat waay lii du débat waay ah, lii du débat ngeen wax ne borom xam-xam yi alfa defal ndànk defal def leen ndax ngir yàlla déglu leen ni ñuy déglu da ngaa bu am solo ci début bi da ngaa wax wax ne wax eh modérateur modérateur bul tëjaat micro de bul tëjaat micro tëjee micro danaa danaa dindi bul tëjaat bul tëj benn micro defal ndànk Oustaz Assane waxuma la yow yow yaa tëj micro bi de dañoo tëj sa micro. waaw waaw kay tijji leen léegi man dama lay wax ma ne la Oustaz Younous da ngaa wax wax bu am solo ci commencement bi. da wax ne dañuy xool preuve ci boroom xam-xam yi nga xam ne ay ulumul hadis dañ ko mën dañoo xam am xam-xamu addis te ñu wéral seeni hadis ñu wax lan lañ ca wax yow baat boobu ba nga ko waxee mu ngi mel ni midi ci man keroog la boobu laa gën a kontaan. ñaarel ba ma yokal len ci ne dana indi preuve ci alquran ak sunna bi ngeen di wootee mais su ngeen ma baye ma indi alquran ak sunna indi borom xam-xam yi nga xam ne ñëpp wolu nañ len ci ne ñom tabi'in lañ am na ci ño xam ne lañ dund ak yonantu bi sallallahu alayhi wasallam ra'a nabi musliman zu suhbatin wa qiila in wa lam tasabbuti wa qiila man aqama 'aman wa ghaza point final loolu saw sa alpha yow xamoo woon loolu doo mën cent personnes non léegi bàyyi ma ñëw. xam nga mënoo dem ci loolu loolu moom loolu moom xamoo ko loolu moom loolu moom hmm. moo tax may modéré quoi maanaam tey Oustaz Alpha xamul lii lii lii ak laa maanaam tey yow instant yi pour pour ah, pour du maa ngi nii wax samay addis mu ne su su waxee dama ko wax mu noppi déglu ma gars yi nee du ngeen ma laisser parler bu leen leen may preuve boobu du ngeen ma bàyyi ma wax dañ lay waa léegi bàyyil ma déglu nga wax ba pare après ma wax waaw kay déglu ma rek man dama bëgg nga déglu dama lay bàyyi nga wax man dama li ma wax mooy maanaam tey yow ba ñu commencé tey da nga ne comme Oustaz Alpha moom dafay daaj ji moom moom mooy laaj bu laajte moom dafa laajte li mu laajte tey ba day nee na leeragul maanaam tey yow li nga wax noonu tasawuf tey ixlaas la nga wax ne fa firru ila allah mooy aay bi nekk suratu zaariyaat am na loo si wax léegi yow loolu da ngay indi tey li nga xam ne si mooy say preuve leer nañ ne yàlla suñu borom subhanahu lii la wax ne moom mooy tasawuf bu ko defee nag débat bi day tegu ci li nga xam ne si ni tey moom mooy moom mooy maanute bu ko defee yow boo boo taxee foofu moom am na droit laaj ne la ah asante indiegoo ab dalil ne ko lii ma indi nii ab dalil la lii yonent bi sallallahu alayhi moo ko firi wala tey saxaaba yi ñoo ko firi nga delloo ñu si téere yi nga xam ne suñu tey moom wax déglu ma mayoo ma eggali téere yi nga xam ne suñu tey ñoom ñoo ñooy téere tafsir yi bu boobaa tey yéen ñaar ku nekk tey na dellu ci lii nga xam ne si mooy amaanatul almiya maanaam tey bul indi benn preuve bu nga xam ne si tey da lay jaral parce que tey pour nga pour nga layal benn mbir parce que li ngay layal yàlla suñu borom subhanahu wa taala mu ñuy ñoo ak ñaari malaaka yu nga xam ne si ñu ngi bind lépp ñuy wax ñu ngi koy vidéo loolu ñu bàyyi si xel ay ay ay jullit ñoo ñuy déglu ñooñu dañoo soxla xam dëgg léegi nag loolu lañ soxla loolu moo ñu fi tax a toog temps bi ñuy perte nii yëpp lool la léegi nag bu la laajee preuve ne la ah indee goo fi preuve nag léegi yow da ngay d'accord ak moom nga dellu si moom léegi yow moom bu waxee benn mbir nga ne ko eh, indil ma si preuve alpha bu fekkee yow da ngaa dàq tasawuf wala tey comme xadis bi nga xam ne si moom la wax ne ali comme yentu salaa mu daal si ni tey moom mooy vilu vilu xam-xam ali moom mooy bunt bi léegi mu daal ne la xadis boobu wérul yow da nga see ak moom mu laaj la ba xam d' accord nga ne ko waaw si commencement bi léegi beneen xadis bi mu indi yow nga ne xadis boobu noonu alpha mënu ko wax ci arab léegi yow xadis boobu noonu tey yow da nga koy daliloo xadis bi da nga koy gaaral nit ñi ñu xam ah, ci wax bii mu wax ne xadis bi daf koo dàq yow lu lay wane nga naa ne ah xadis bii de moom nekkul. xadis baax na baax na baax na baax na baax na baax na continuer. léegi dégg naa la léegi. waaw bisimilah waaw ñëwal waaw. damaa jum tujji sa micro tujji sa micro. man ci njëlbeen nga laa ne leen. hadis bi muy waxaat damay bañ teel koo wax commencé ko ñi demaat débat ba génn lu ñu doon wax li ma bëgg wax bàyyi leen ma wax ko te mujjee addis bi génnewaat ko bàyyiwaat leen te bu leen sabootee man maa ngi leen déglu yow Yunus wallahi li nga wax sax moo ëpp man li ma li ma wax man man mi invité bi laaj ko ñi laaj ko ñi ci commentaire yi ñi bind ko nga xool waxuma laa Oustaz Alpha Ba mais bàyyi leen mu indi dalil yi bul waat bul waat continuer yaa xëy bul bul wax léegi nag dama lay indil kon dama lay indil ñi nga xam ne dañoo wax ci tasawuf lan mooy tasawuf ñi mu wax lim leen léegi ne dañoo weddi addis bi dama lay limal ñoom wane ne déedéet loolu luñ créé la waaye addis bi ñoo ñëpp saxal nañ ko ma limal la ñan ñoo saxal addis bi ak ñan ñoo saxal tasawuf ba pare indil la dalil alquran ak sunna delloo la kàddu gi nga wax fi ba suba ma dégluwaat la may naa mën naa la may temps man mën naa la may temps boobu dama lay njëkkee ci imaamu daarul hijra muy Malik ibnu Anas ak imaamu Shafii déglu leen de ku ma leen tuddal nag danaa leen indil téeréem indil leen la wax ci tasawuf indil leen page bi ngeen noté ko nii léegi ngeen tappe ko ci seen machine yi mu génn su amul rek su ngeen ko gisul rek man ma jébbalu fii ci seen kanam man maa leen ko wax bismillah bu ma kenn dagg léegi dama lay indil Malik ibnu Anas imaamu Shafii Ahmad ibnu Ambal imaamu nawo wi nga xam ne moo bind Riyaadu Saalihiin nga xam ne moom mooy le premier moom mooy njëkk a chara Sahihul Muslim moom rek ko ko def kooku xam nga ne kon du du ku ndaw ci addis dama lay indil ibnul ibnul xusaafata. nga khuzafata moom ibnul xusaafata ak. nga mom rek moko def mo sharh muslim. shara muslim kan nga ci xam keneen. alqaadi ayad. déedéet. waaw bàyyi ma sama temps bàyyi ma sama temps bi d'accord ma ci waaye danaa la wax lu tax d'accord ma ci bàyyil ma pare bàyyil ma pare rek. xaadiya xaadiya xaadiya xam nga lan la xam nga lan la xam nga lan la shara xaadiya mu mu dawana kubra moom la shara xaadiya mu dawwanatul kubra moom la sarax oustaz Alpha nag wallahi yow da ngeen saboté quoi Assane da nga ne bàyyi leen mu ma yeggali Assane mu ma waa da ngay àggali waaw riyaadu saalihin bàyyi ko bàyyi ko bàyyi ko waa léegi may naa la bàyyi riyaadu saalihin du riyaadu saalihin da nga ne waa sahihu muslim ban téere léegi doo ma bàyyi oustaz ma continuer nga bàyyi affaire bi oustaz Alpha may ko mu continuer ngir yàlla bàyyi ko parce tey may ko mu continuer continuer bismillah addis bu dee gëm ngeen yonentu bi sallallahu alayhi wasallam gëm addisam yonentu bi wax na ne man kaana yuminu billahi wal yawmil axiri fal yukrim day dañuy teral gan te man seen gan laa may leen ma ma wax même suma doon fen may leen ma ma wax ngeen weddi ma mais ngeen laaj ma te nee ma doo wax loolu nu muy demee léegi nag acca ma ñëwal la kon ci ki nga xam ne mooy euh, imaamu nawawi borom riyaadu saalihin téeréem baa ngi nii ubbi naa ko addisam mi mu ngi fii ci sama wet ak mhm. alkaatibul baxdaadi moom it dinaa ko indi li mu wax Euh, Ahmad Ibnul Hajar al Asqalaani. kan Bagdaadi. ah. Bagdaadi tur bi. Bagdaadi déedéet oustaz doo ci loolu de. non xaaral da nga tudd ay téere da nga ne Nawawi ban téere la Nawawi téere téere fan la ko waxee. Riyaadu Saalihiin. Riyaadu Saalihiin la ko waxee mooy mooy mooy muslim bi. déedéet. Riyaadu eh. Saalihin ak Sharh Muslim da yow yow yow la yox ni. waaw ah, Riyaadu Saalihin nga ne Riyaadu Saalihin ne Sharh Muslim kon xamoon na du benn ba tey. loolu laay laaj dama bu mu Sharh Muslim <coughs> <coughs> wallaay du ma la tontu Oustaz da ngeen ma wax ne ma da ngeen may bàyyi sama temps bëgg maa mu bi da ma micro Oustaz Alpha mi mu déglu ma. man dama ko déglu naa am noppi gar mi déglu ma dama ko déglu dina ma déglu. a ah, wax téere laa bëgg a leer danga ne Nawawi ak kan. mais déedéet dama lay limal après téere xool dama laa wax ku ci nekk lan la bind. waaye dama lay wax bu pare téere dama la koy limal wax la téere ba mu ko wax. waaw bisimilah Nawawi bisimilah. kii ngeen yéegal ni wàccee leen ko bokkut ci débat bi. modérateur yi bu leen yéegal kenn. bu bu ñu yéegal kooku ñu yéegal nañ ko wàccee. waaw defal defal ndànk Oustaz Alpha. dajal sa ngay noter Oustaz Assane Oustaz Assane dama lay nga dem ngir yàlla nañ tey axi mm-hmm. Oustaz tëjee sa micro ngay noté si téere yi mu wax wax na si imaam Nawawi man maa ngi Riyadu Salihin. ah koy jàppale yëpp yooyu maa ngi koy yore amul problème. léegi ah da nga koy jàppale. bismillah koy jàppale ah solo. non jàppale wu ma ko non man damay wax ne yooyu maa ngi koy yore laa la wax. maanaam li nga kenn man dama ne si dëgg. Eh, mais nag mais nag bu ñu waxee borom commentaire yi bu ñu waxee xam nañ ki ngay jàppale de. loolu mais a wax ne ma du léegi baal ma nañ continuer nañ continuer Ahmad ibnu Ahmad ibnul Hajar al Asqalaani mi nga xam ne moom moo bind moo bind buluuxul maraam min al adillatil ahkaam muy eh, Ahmad ibnul Hajar al Asqalaani eh, boo demee ba tey ci imaamu Suyuuti bokk na ci ñi nga xam ne ñoom ngeen gëm ak ibnu Salah ibnu Salah tamit dinaa ko indi al ibnu Haakimul Nisaabuuri Nisaabuuri tamit indi na ko Abdullah ibnu Mubaarak moom it indi na ko imaamu Zahabi moom it indi na ko ibnul eh, Mulaqin moom it indi na ko ibnul Xudaamata xuddaamatal maxdisi moom it indi na ko ak sufyaan ibnu sayid a sawri ibnu sayid sawri indi na ko ak ñeneen ak ñeneen ak ibnu taymiya ak ki nga xam ne mooy ibnul qayim al juuzi ma ñëwal la ci imam malik lan la waxoon ibnul qayim al al juuzi al jawzi waa dañu wax al jawzi yow français bi ngay lire moo tax google bi moo lay rey arab bi ibnul qayim al juuzi la ñuy wax mais français ci ngay jàng moo tax du baax nee na français laay lire. <laughs> waaw parce que xoola Ibnul Jawzi français moo koy wax. man ooma bag de man ooma bag mais dem naa ba terminal ooma mais dem naa ba terminal boo ko liiree ci français Ibnul Jawzi la bind mais juuzi la parce que arabe booy bind di bu waaw gi ñëwee rek day doon uu yaa ngi dégg walaw <laughs> léegi nag mu ngi noonu comme nga ne kaan ak kaanu. day am waaw moo tax juus yi ngay wax ah loolu nag oustaz élémentaire la de yow yaa ngi bëgg yaa may bëgga bett de léegi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na ba dafa seede ci Malik imaam Malik yonent bi sallallahu alayhi daf cee seede bala ngay weddi addis ba nag bàyyil ba ma indi man fan la addis ba nekk euh, boo demee yonent bi waxoon na ne mhm. yuusiku an yadriba annaasa akbaalal ibili yaltamisuuna al ilma falaa yajuduuna ahadan mhm. aaliman di aalim imaamul madina addis baa ngi noonu yonent sa sallallahu alayhi wasallam nee na dana jot nit ñi jullit ñi danañ jóg war seen i gëlëm ya ba gëlëm songoor ba sonn ñii wuti xam-xam waaye duñ mës a jot xam borom xam-xamu imaamu madina bii nii muy malik ibnu anas te yonent bi sallallahu la wasallam waxoon na ne laa taqumu ata te loolu addis boobu mu ngi ci buxaari génne leen seen buxaari bi ngeen xool mu ngi ci buxaari addis boobu noté waale noté waale bul wax de noté rek nga déglu léegi hadis boobu kon mu ngi ci Buxaari wax naa la référence bi ni ko yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam waxee léegi nag nga dégg yonantu bi fi mu waxaat ne laa taqumu saata hatta yazhara ila imaamul madinati yonantu bi nee na sallallahu alayhi wa sallam àddina du jeex saa du taxaw lu mooy ba dana feeñ borom xam-xam bu tedd bii di borom xam-xamu madina bii léegi nag te léegi yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam seede yu rafet yi mu wax ci imaam Malik imaam Malik moomu nag moo wax lii may bëgg a wax لنتفقه فإن الفقه أفضل قائد إلى البر والتقوى وأهدل قاصدي لأن فقيئا واحدا متورها أشد على الشيطان من من ألف عابد هو علم الهادي إلى سنن الهدى فإنهم يمدي من جميع الشدائل لأن فقيئا واحدا متورها أشد على الشيطان من ألف عابد légi nag mu wax kon ci tasawuf ñu laaj ko lan mooy tasawuf mu ne imtisaal mamourat wajtinaabul munti al mudawanatul kubra bi sham dañ la mo lan tasawuf dañ ko laaj la mo tasawuf ana ibada lan moy tasawuf lan moy tasawuf ana ba bo demé ci bo demé ge ubil ubil ubil mu bala ñi wax leneen balaa ñi ñuy xóotal ma lay déglu ma lay déglu liral ana ba bi fu mu ko waxe tasawuf bu tont ñu ba wala mu ne sa hasan bo bo dafa ndànk damay pose rek ngir yalla wala laaj no dafa dank no non damay laaj parce que bu fekkee ne alfa yorul mu wappa man yorna mu wappa bu nga xam ne si ni tey mak la oui mais jarul wax yow wax naan la yor ko man kay su may xool da ngay wax page bu mu nekk carrément ma dem lii xadis bu fekkee ne dëgg la ma ne la lii Imam Malik moo ko wax fekkee nekkul dëgg nag ma a lii Imam Malik téere yi ngay wax yëpp maa ko yore wallaahi la waaw d'accord yéen ndànk Oustaz Assane defal ndànk axi mais bul ma daggaat mais lan la xanaa dafa am ngeen ragal Oustaz Assane yéen ragalu leen dara yéen jàmbaar ngeen du ngeen bàyyi mo def yëfu xale de sànq da ngaa tudd bulughul maram xoolal bulughul maram mu ngi nii ma yore xoolal mu ngi nii. moo tax moo tax bu Malick bi ngay wax waxal page ban la nekk si li ngay wax man naa ko génne amul problème moo tax bu Malick mi ngi nii. riyaadu yéen dafa am yëpp ngeen bëgg yéen dafa am lu ngeen bëgg bàyyi ma fekk si leen ci ma ubbil leen téere di leen jox. léegi nag loolu yow ak Alpha yéen ñaar mais man damay xoolal sama bopp. ok damay jàll téere yi ngeen di ko gis ma jàll téere yëpp ngeen gis ko. ma di leen ubbil bu fekkente ne man ngeen ma may man ma wax ngeen noté ah mais yéen déedéet déedéet Oustaz Alpha waroo wax de léegi yow yow yow fi mu toll nii benn da ngeen may bàyyi ma wax ko ngeen jël référence yi téere bi wala ngeen bëgg dalil ma ubbi téere bu ma ko wax wax lu ma wax ma ubbi téere bi mu nekk ma ma ma génne ko ci image bi vidéo la du dëgg kuy tëj sama micro na ko bàyyi léegi li du riyaadu saalihin kuy teg micro bi na ko bàyyi. Assane riyaadu mu ngi nii Assane déglu ma Assane déglul Assane damay bañ mu gën a damay bañ mu gën bari li nga wax fi yëpp bari na. mais da ngay ma lim ko de. dara. la ko ba jant bi di so doomu indil ci mu wattaa baatu tasawuf. mais bàyyil ma indi ko. génne ko. acca mais noonu la léegi. waaw defal defal defal defal ba jant bi di so. doomu mais bàyyi kër wax xaaral ñu def de indil ma ci mu wattaa fu imaam Maalik tuddee baatu tasawuf génne ko. waaw yow mais loolu lu yomb na. waaw baax na génne ko. ay eh, bàyyi leen ñi ngeen di muté maa ngi gis sama nit ñi ngeen di muté de naa ko de booba léegi ngi bëgg bëri de maa koy gis nii nag maa ngi jàkkaarloo lépp. waa génne ñu ngi muté. maa ngi koy gis de génneel génneel baatu tasawuf ci mu wattaa. voilà léegi bàyyi leen ñi ngeen di muté ba pare. Mm-hmm. léegi imaam Maalik mu ne boo demee ci mu wattaa mm-hmm. imaam Malik mu ne tafaqa fa innal fiqa afdal maanaam bàyyi boobu wax naa ko sànq sax dama lay indil kon tasawuf mu ne waman tasa waman tafaqa walam yatasawaf faqad tafasaxa waman tasawafa walam yatafaqa faqad tazandaxa waman jamauma faqad taxaqaqa ok génne ko ci ci ci ci Muwatta indil fu mu nekk ci Muwatta. balaa may dem kay ba danaa leen ko génne mais da ngay déglu déglu ba pare yow kay da ngay a déglu rek. yow kay da ngay déglu. Assane dem naa Assane li ma laaj dafa yomb. baatu tasawuf génne ko ci Muwatta Imam Malik lii laa la laaj ko ci Muwatta Imam Malik. mais li ma la wax nii bu dee jàngoo kay nga nga baax nga baax li ma la wax nekkul nekkul ci Muwatta Imam Malik li nga wax. Assane wallaahi mu ngi ci Muwatta Imam Malik. Assane Assane nan def ndànk liir liir nga liir nga wax ji liir nga wax ji. man damay man damay àtte dëgg rek. da dëgg de. Oustaz defal naa dëgg defal naa wallaahi àtte woo dëgg. wallaahi dëgg laa àtte. dëgg bi may ate moom mooy yow da ngaa liir wax ji ne ne mi ci mu wàppa léegi man yor naa mu wàppa da nga may wax page bi mu nekk wax ma page deux cent deux cent trente neuf wala page nangam. buntu bi babul babul nan nga wax ma ne ma mi ngi babul takbirul ayyamul tashriqi wala min ci ban babu nga wax ma lolu ma génnee ko taf ko fi ñep gis ko ñu oustad hasan lu wax deug la Imam Malik wax na lolu waw mais tay Imam Malik wax na lolu si tasawuf lolu non tay si Imam Malik dañ koy dañ koy nangu ñu xam Imam Malik tay mom bok na ci ci quatre mazhab yi nga xam ne si ni tey waa Sénégal ñun lañ teunk defal dank defal dank non non defal ah, ah oustad hasan yéen ñaar seen débat tey ba tey du nu ñëwee fii nii tey temps bi dafa gudd ba pare nag dali yi nga xam ne si nii tey moom lañ soxla si Oustaz alfa ak yow maanaam tey loolu leeragul suñu bopp ñun. léegi yow wax nga ne wax nga ne say mi ngi ci moo ma wax mu wax ko bu Imaam Malik bi léegi da nga may wax page bi bu ko defee bi iznillahi taala man ma taal sama caméra génne ko ñu xam ne Oustaz Xasan li mu wax nii tey dëgg la après ñu continuer barakallahu fiik yaa Cheikh aywa. léegi Yunus li ma bëgg wax mooy tasawuf amul. déedéet balaa nga yow Oustaz yow waroo wax de. yow waroo wax de déedéet. waaw gis te du ngeen ma jox ma lekk du ngeen ma jox ma naan. yow Oustaz Yunus yow Oustaz Alpha Ba. Hmm. su ma ne la. laa yukallifu llaahu nafsan illaa wusahaa ban aaya la numéro ñaata ak ban page la nekk ci ñëri bi wax ko. laahu nafsan illa wusaha mën naa la ko wax mi ngi suratul baqara boo demee si tey tilka rusulu si xisib bi fa la nekk. déedéet déedéet pas numéro bi laa wax numéro bi laa wax. numéro bi ak page bi. numéro bi ak page bi kay. non page bi ak numéro bi. suraat numéro ñaata la. Assane indil ñu mu waxtaan. non suraat numéro ñaata. Assane indil ñu mu waxtaan. mais suraat numéro ñaata alxuraan a gën a for mu watta danaa ñëw ci mu watta bi mais aaya bi ak ak addi ak ak page bi. mu ngi ci aaya bi yéen naka ngeen di sonnee ci loolu sax xamu leen ko. mu ngi ci aaya bi mu ngi ci aaya bi mu ngi ci aaya bu mujj ci Baqara Assane indil ma imaam Malik fan la tuddee tasawuf ci Muwatta indil ma ko Assane. da nga may li ma la waxoon ci njëlbeen gi dama lay indil ba pare. jox la bu ci nekk ma jox la référence yi mais li ma bëgg a wax. da ngay bàyyi ma yëgale ko. bisimilah Assane bii mooy ñaari ma yëgale. Assane bii xadis bi dama nekk liir ko. boobu léegi maa ngi lay laaj loo mënta indi ba pare bëgg maa forcé ci dara mais oustaz bu débat non lii du débat. Assane bul yàq yéen a ba pare te du ngeen ma may sama temps du ngeen ko du ko def waaw Assane débat ma jox leen tasawuf gii danaa leen ko leeral alxuraan ak sunna tey ba leer nañ ba cinq heures du matin fekk coupé wu leen live maa ngi Assane mais da sama temps nga nekk du ma la déglu sa non Assane du ma tontu. oh Assane ma ci mu ma la tontu du ma la tontu loolu sa aventuré baatu tasawuf yow maa ngi laaj li ma la laaj léegi amoo ci dara xamoo ci dara ba pare nga bëgg ma. bu la ci mu waxtaan Imaam Malik Imaam Malik <laughs> wax génnal fan la ci mu waxtaan dama ne la. du yow moom yow laay waxat débat bi ñëpp la ñuy waxat. dang may deglu ma indi samay dalil may nga ma sank nga ne ma d'accord nga ak man ma lim limay lim indi mm-hmm. téré yi ak lan lañ wax li nga lim yëpp ngeen ne mukk du ngeen ma déglu Assane da nga lim ay tour te indi wo wax ji Assane mais indi la rek yi man do bay ma déglu loo bàyyi indi wax yomb na li yomb na li nga wax tukhol ko ci imam may ne mu ngi ci waxta asa nee mu ngi fi mu ngi ni fi la nek li rek lañ soxla dama koy yeggali ba pare ma do ko def lan ngay yeggali baat bi lu mu tollu imam wax imam malik ngay àggale limay wax ni waxu imam dama ko yeggali ba bare wax la li nga bëgg te bul faté hadith bañ doon wax manan la wax ko waxon na la dama koy mujjé luma wax dina ko def te yeen li ngeen may wax ni yeb dafa goo leen ci dara du ngeen ma deglu du ngeen ma may da ngeen may roubé imam Malik li ma bëgg li ngeen bëgg mu leer du ngeen ko mësa deglu du ngeen ko mësa deglu ini, ndax bu ngeen ko deglo tay wallahi azim bu ngeen ma deglo tay kérok ngeen gëj wax ci tasawuf maa ko wax bay bañ mu mujju ay werante du am njëriñ assan da nga indi waxu Imam Malik Assane man maa la défier. mais yow Imam la ñu wax wala tasaw yow léegi daal Imam Malik nga ko kalaat. xaaral ma pare xaaral ma pare Assane man maa la défier. Muwatta min alifihi ila yaa'ihi Muwatta ci tàmbalam ba njeexintal ba. doo ci gis baatu tasawuf doo ko fa gis. commencé commencé xoolal. waa déglu ma wax la waa déglu déglu ma tontu la. déglu ma tontu la. waa déglu ma tontu la. léegi déglu nag ma Assane du dem. waaw déglu ma indi preuve. léegi déglu ma mënoo ko. waaw non mais ma Assane mais ma. léegi léegi bàyyi ma indi preuve. man loo ma forcé ma indi la preuve. man loo ma forcé. lu ma bëggutoon sax soo ma ca forcé ba bëgg cee indi jàlluwaay danaa la indil preuve. ba pare dellu ca la ma nekkoon. léegi indi ma mu woppal wax ci indi ko ci mu woppal. commencé ci page. 190 mhm. ba 197. Mhm. ci tasawuf la koy wax demal. baatu tasawuf ci Muwatta laa la laaj. waaw demal demal demal demal demal wax jarul jarul jarul bëri. jarul bëri Yunus ubbil téere bi. acca ubbil mu gaaw te ngeen bàyyi waale ma ma continuer waale nag. parce que loolu du ma bàyyi xaaral ba Yunus ubbil téere bi. dégg la may lii ba lii leer oustaz yow yow yow oustaz man daane nga ma de. non day leer man bett nga ma de. non preuve bi day leer Assane Assane. déedéet ma de. yow baatu Muwatta bi ci Muwatta ba nga ko bëgg a kalaat. yow alxuraan bi may layal ak sunna bi may layal ci tasawuf yow da nga waroon a yàkkamti ne yow oustaz fa déglu da ngaa waroon a yàkkamti ba ma ne danaa ko layal ci alxuraan ak sunna foo jëm <laughs> foo jëm Moussa Alpha. mbokk yi bàyyi leen bàyyi leen kan moo ko wàccee. déet ku ko wàccee kay xam ngeen. non non yéen a yore yéenay buum yéenay buum. non non yi sànq ba léegi dañuy tëj micro. Oustaz Assane defal ndànk. waa maa ngi koy xaar. déedéet Oustaz Younus. na Oustaz Alpha ba yéegaat fii ci live bi. day yéegaat de day yéegaat déedéet na yéegaat léegi parce que duñ fi jël ay doomu aadama teg leen ci laay ba pare ñuy roccee ko di dem. ñu nañ toog fii ñu waxtaan. da ngeen déglu alfa day yegg <laughs> mais li ngeen may def moo may merloo parce que lan moo tax ngeen may ngeen ngeen ngeen may wax waxloo ba pare du ngeen ma déglu. da ngeen invité dafa ma déglu tëj leen seen micro yeen ñaan ñëpp ma lire ma lire affaire bi ngeen koy dégg. bala ngay yegg ci moo tax doo jël temps doo ko déglu ma fi wëral di ngay wër xol alba eh, eh kii. 100 naa ko wër naa ko cent page cent quatre vingt dix nga wax mu ngi nii ñu. tiim ba cent la wax. li commencé page cent ba cent quatre vingt ko fi la ko xaar lay lire kay. moom lay lire mu leer nañ mënoo fee lire loolu yëpp mënoo koo lire yëpp. ankay ankay bañ a mën Asal lire. waaw léegi doo ma bàyyi ma yeggal. Assane waaw mais Oustaz Assane nag dañ Oustaz Assane wax dëgg Assane waaw dafa ndànk mais man su ma nekkee invité bi yor naa kii moom mooy si amaana. mais da ngeen di tappale yéen da ngeen di tappale. Assane bàyyi dafal Dank Hasan, hasan alfa déglu ma ngir yalla hasan degluma yow da nga ne tay mi ngi ci page 190 quatre man talna li mu watta mi ngi ni ñepp di gis mu watta bu malik gis ngeen xaaral ma war leen mu watta bu malik gis ngeen. mu watta gis nga defal Dank, Oustaz Yunus, déglu waxaaleel demal nga liiraale te bàyyi ma continuer. déedéet man damay liir damay liir ñëpp di dégg mbokk yi dañoo soxlaa bëgg xam damay liir di mais mais mu watta ngeen ko bëgg kal dena kala ñu ko ci mu watta ñun bo bëgge sama watta dañ koy dakh parce que alquran ak sunna lañ soxla alquran billahi wallahi taala bu ngeen ma deglu di ngeen deg deug defal ndànk sa hasan bu ngeen ma deglu sa hasan defal ndànk xam nga lañ soxla ñun alquran ak hadith mu watta bi ni tey ñu soxla wuñ ko mais yow ya duggal sa bop yow ya na mu ngi ci mu watta page 190 ba page 185 man na la ko lire li arab la bu leer nañ man na la ko lire bi ngi ni fi kitabul hajj la commencé mu ngi ci kitabul hajj fini fini tay mine inni ara ru'yakum fofu la commencé manako lire ñep di dégg asan yow yaana mu ngi ci muwatta man né da bala defee né la muwatta amul baatu tasawuf man maa la defee ci lool légui yow ya indi sa page ba yurus liir ñu ñu yurus ra bismillah wa asan ubi sa micro sa micro ubi ko nan la koy ubé yow nak nga koy tejé dafa ndànk modérateur bi nga xamna si moo buzz buzz buzz damay dindi sa modérateur parce que sànq ba léegi yaa ngi lay gis yaangi damay dindi sama dara te dama lay bloqué sax defal ndànk parce sang balay ba tej micro di tej micro buzz xaram ma dindi ko. xaar leen xaar leen. non Assane lii méttiwul de Assane da nga indi sa da nga ya indi sa page yow dañuy lire li nga indi lañuy lire yo ya joxe sa reference loolu lañuy lire li nga joxe lañuy lire Assane. léegi déglu Yunus li nga wax man dama ne la tasawuf baatu tasawuf nekkul ci Muwatta Muwatta Imam Malik baatu tasawuf nekku fa alif ba téere bi jeex newu fa. Oustaz Assane kenn déggu la kenn déggu la sa micro kenn déggu la taal sa micro. waaw. yow yaa ko a taal taal sa micro man maa ngi koy taal ba son tàkkul wallahi maa ngi koy taal. eh modérateur yi defal ndànk mbenn wala kenn si na kenn taal micro bi. waaye ñooy tëj micro bi man sama micro bi nekkul fii man du ma tëj sama micro yéen a koy tëj. yéen xam ngeen baax ngeen def xam nga ñun sànq dañuy débat si si dal la ñuy débat defal ndànk. non duñ daal parce que li ngeen di def nii teguwut ci benn yoon. Oustaz Assane defal ndànk xamul tax ma tëj sa micro man maay tëj sa man maa tëj sa micro tëj micro Alpha defal ndànk ngir yàlla damaa bëgg nga déglu ma déglu ma. déedéet Alpha moom il a intérêt nga tëj micro parce que amul lu mu fi wax. déedéet waa defal ndànk man tëj naa micro. dama bëgg ngeen déglu ma da waaye sama temps ngeen yore ngeen naa ma déglu lu tax ma lay déglu du ma la déglu sama temps ngeen yore da ngeen may bàyyi ma layal. taw jox sa temps mais yow da ngaa joxe ne ibbil téere bi. léegi nag leer na ci alxuraan bi yëpp. ci àddina bi yëpp nañ ko dégg. fu ngeen waxatee ci tasawuf dara dañoo war a jël yet doo duma leen. parce que waxu leen ci dara yaa yaa yaa ngi saa saa saa ngeen ma meloo parce que yaa ko def. saa xasan yaa ngi juum de. débat bi bi ngeen koy yàqee yàgg na parce que tasawuf xamu leen ci dara ma leen koy leeral. saa xasan li ngay wax nii nii tey xale yu ndaw sax waxuñu ko axi ragalal yàlla taqillah mais mais li ngeen ko defee tax ni ngeen tax yow instant bi nii bu fekkee ne tey si wàllu lii nii tey maanute moo tax ma ubbi sama téere da ngaa tiddi lii maanute wul billaahi wallaahi maanduwul oh, da ngaa da ngaa tudd da ngaa da ngi nii riyaadu solihin maa ngi yor maa ngi yor buxaari maa ngi yor muslim yëpp maa ngi ko yore fii waaw doo déglu may indil la dalil yi may indil la li ma nga xool ah, mais gis nga yéen billahi wallahi taala yeen yeen da ngeen da ngeen yeb saan nit ñi parce que yéen ya, ya, ya, subhanallah déedéet yàquma ko mais lu tax ngeen may merlo lan moo tax du ngeen ma jox sama temps bu ma lay may dañ lay jox temps yow yàlla ñu ko mu wax dañ muma ko deer waro yow waro wax yow yunus ya lo mi def yow yow waxoo woon ne doo wax non non mais man waxuma de man damay lire doo déglu may indi wa legi deglul deglul lire ko ci sa bop bo bare nga gis ko nga indil ñuko soko gisul nga ne indi oh, gisuma ko nga xool ndax da nga ne gisuma ko. maa ko defee da nga ko indi. ok bismillah waxal. mais ah, bàyyi ma <laughs> mais gis nga gis nga xoolal na ngeen ma bàyyi ma expliquer li may expliquer li nga ma bëgg li ma bëgg a wax da ngeen ko déglu ci nii wala ngeen déglu ko ci naa man du ma ñeneen ñooñu ngeen doon débat de. léegi boo demee imaam imaam mu aju nga xam ne si tey wax yooyu jarul nekk sax di wax parce que yow da ngay wax yu nga xam ne si sànq ba léegi ñun sax waxuñu ko non non non mais parce que li ngeen def da ngeen ko jël charte yooyu mais charte yooyu yaa koy génn axi déedéet déedéet li ngeen di def nii sabotage la te ñëpp xam nañu yow yaay saboté sànq ba léegi mais nan ngeen di jëlee fii nii waa léegi déglu ma yeggali léegi déglu ma yeggali léegi déglu ma yeggali Assane non xaar Assane yaa ngi génn débat Assane waa léegi baal ma waa léegi baal leen ma àq baal leen ma continuer waa léegi maa leen toog baal leen ma àq léegi même une minute maa ko ñaan en tant que déet du ma la may dara yow kay du ma la may dara da ngay bàyyi ma daaneel ba pare passé une minute may ma du ma passé une minute déedéet may ma ma daaneel may ma ma daaneel ba pare nga jël may ma ma daaneel. déedéet may ma ma daaneel. yéen du ngeen ma tëggee di tama ku ci nekk di di bu la neex. su kii lii ñu def bëreetul njëriñ lii ñu def nii bëreetul njëriñ Assane Assane dañoo waxtaan nit nit ku nekk li ngay wax da koy teg ci dalil Assane boobu ba léegi yaa ngi wax li ngay wax indiloo ko dalil fii laa laaj ixlaas bi nga ne mooy tasawuf ana dalilam indiwoo ko istixfaar bi nga ne mooy tasawuf ana dalilam indiloo ko xadis bi nga di ma. yow laa la indilool fii ci dalil yow li ma lay laaj fii nii booba léegi yaa ngi bëgg a jooy dañoo mujj ma baal la question yi. li ma la laaj benn sax jéemoo ko ci. benn barke alxuraan bàyyil ma laaj la benn laaj kese kese bu gàtt boo ko tontoo ma jébbalu ci yow yow. waa su ma la laajee benn laaj fukki laaj boo tontoo benn bi ma génn ci tasawuf yow. baax na après laaj la bàyyil ma laaj la kay indi nga xadis. waaw même waaw même rek. indi nga xadis boo tontoo yow addis bi ma la indiloon léegi soo ko jàngalee man ma génn ci tasawuf wallaay baa ngi may dégg moom ba tasawuf tey ba sëriñ yëpp ba tasawuf jàng naa ko addis bi lan la bi ah. alxuraan du loolu billaay wallaay du léegi liiral léegi liiral léegi léegi firil waaw léegi dafa naa léegi liiral liiral addis bi mënoo koo wax laalo addis bi xamoo ko da nga wala da nga muus di teg xel te man teg xel yooyu di dox ci man man boo ma gëstu woon yow da nga maa gëstu ba yaakaar ne xam nga ma ta xamoo ma baax léegi déglu ma addis bi boo ko tontoo boo ko indee man ma génn ci tasawuf ci laay bi bii billaahi wallaahi tallaay indi naa ko neel yaa ko nanguwul léegi asal li ma laaj mooy léegi xadis bi nanguwoo ko liir ba tey nee naa dinaa koy indi mais boo ma dégloo ma indi ko. mais ko lire une heure de temps. xadis bi ma liiral la waaw foo déggee xadis bi dama la laaj boo déggee hadis bi ok léegi yéen ñi doon wax fii nii ci début bi Assane jàngoog demal jàngeeg dafay tekkal ak nangam léegi waxu imam Malik yow yaa sa référence waxu imam Malik yaa joxe référence léegi mel Yunus mu liir li nga joxe référence bi nga joxe mel Yunus japp ci rek mel yunus mu lire reference yi nga joxe japp ci ta yalla tax mel yunus mu joxe nena la baatu tasawuf amul ci muwatta bu imam malik do ko fa gis ok li leg yunus liral lu mu indi liral page bi mom da am ko tej micro de man len di sédel ne billahi wallahi duma wacc live bi su ngeen ma gisut xam len ne wacce nañ ma parce que yi ñi def ni di tej micro lu tax ngeen tej sama micro kenn wàcce ci micro eh modérateur yi ngir yàlla ku li moo tax waxoon la la ko alpha ba léegi sànq ba léegi modérateur yi ngi tëj micro alpha ba ma njëkk a deso fi ma sama kàddu laa lay jox ba ma la modérateur bi wax appel nga ma sama kàddu laa la jox kenn du fa saboot ma la nit kàddoom laa koy gëmee te yow amoo kàddu parce que gars respecté wuñ li ngay wax comme que ñoom ñoo la mënta respecté ñoom ñaa ànd ak yow waxuma la ko wax débat bi dafa dafa dafa dafa dafa désordre. mais du ngeen déglu yéen a déglu waaw defal ndànk defal ndànk axi man damay modéré affaire bi mu mu gën a. non modéré woo neel damay damay damay sopp. da nga may déglu subhanallah alazim axi waxal lu ma xam ne yéen dix may naa leen modérateur yi nañu yéeg léegi may naa leen yéegal leen ay nit. te te te yéegaluñ kenn. non man maa leen ko ñaan. jaba sa Hasan yow li ngay wax nii waxu xale la wax dëgg yàlla nag ngir rek man tey damaa am si yow respect bu nga xam ne si ñi tey déglu ma dama laa respect. wallahi li ma jox alpha déggoo ba tey benn kàddu benn kàddu defal ndànk yow da ngaa ma wax la da ngay déglu yow Alpha yéen ñaa yëpp déglu leen la sa sànq bi ngay wax danga nga doon lim ay téere di lim ay té di non non defal ndànk déglu ma rek déglu ma. ñii bu ma bàyyee ma ma continuer sama discours. waaw defal ndànk di lim ay téere ba ñëw waaw ma. subhanallah mais tax nangu ma déglu. da ngaa lim mais waroo wax. waa dafa loolu lañ wax loolu lañ caa def nii defal ndànk. yow yow sa yoon newu ci. man ak moom la. la ilaha illallah muhammadu rasulullah. man moom la. la yéen ñaar la léegi moom yow da ngaa tudd Muwatta Muwatta bu malik. mais do ma baye ma yegal indi na li wax ci Muwatta 190 manam tay débat nuñu xamé na ba xam lolu deug la dañuy dellu ci téré yi légui page 190 ba 197 mi ngi ni mën na ko lire en arabe. mais sant guma lako ko. wax naa la di ko lire mais dina la ah, may nga lire ko mais dañ kaa dañ kaa bëgg xam. mais guma mais baye ma ma lire lako man ma lire lako nga génné ko. de defal ndànk yow bokay lire man man lire wa commencer bismillah lire ma ma nek nekk. yow doo déglu ñun lu leen dal du ngeen déglu man ma wax li may wax lim li may lim indi leen preuve ci commencement bi déglu bul waxaat waaye bul waxat bul waxaat déglul ca ba may commencé dama leen a xam dama ne leen dana lim yi ma wara lim limal leen téré yi benn benn indil leen téré bu ci nekk lam wax naka la leen di lay ay wak. commencé wax di commencé wax ñay wax ngeen kal ko ci mu wata rek ne du ngeen déglu limaguma sax billaahi wallaahi taalaay déglu leen acca bismillah léegi na déglu ngeen ma léegi limal naa leen loolu boo demee itam ci imam ajruni moom dafa wax ci ci ci kasful kasful kafa kasful kafa moom la wax ne nee na shaafiyu imaamu shaafiyu imaamu shaafiyu boo demee ci kitaabul ummu kitaabu ummu li imaamu shaafiyu yéen a ngi koy dégg kitaabu ummu li imaamu shaafiyu imaamu shaafiyu nee na ubbi ba ilayya min dunyakum salasa ma lire ko parce que loolu la waxande won ak yeen <laughs> parce que nee len ne wax ko imam chafi wax ci ci kitab ummu nee ubiba ilayya min din dunyakum salasa salasa. man de imam chafi imaam wax na ci kitab ummu moy terem bi gëna mak ci terem yi ku jàng ko ne xamna kitab ummu mu ne ubiba na ilayya min dunyakum salasa hubbiba hubbiba du ubbiba del xol di ngay lire deugal mo na da ngay xol li ngay lire kon da ngay jëm fay <laughs> hubbiba hubbiba la ubbiba lolu lan la lolu arab hubbiba legi deugal legi mu ne waaw nangul la ko parce que duma la may benn jàlluwaay léegi mu ne ñet yi yalla mu ne tarku takallufi muy ben ñaarel ba wa israatul khalqi, muy ñaar ak lan ci lan ci lan la ko bëgg mu ne bi talaxtu fi ak ban ban mooy troisième bi mune, ihtida'u bi tariqi ahli tasawuf ya ngi deg de mhm. legui nak mo firil lako xamna xam comme que newon ngene du ngene ay arab dañuy mhm. lu wax firi ko mhm. imam Shaafi neena ta hadith bi bo deme albani ci bopam ci ñu wiral hadith bi la bok so paree na nga wax ji du hadith eh, waxu imaam Shafi du xadis nooy tuddee wax imaam Shafi xadis. loolu moo tax na xamoo hadis. loolu du hadis imaam Shafi. waxul lan mooy hadis da nga naan hadisu nabawi xool eh wuy ma woon hadisu nabawi nga mel ni kon hadisu yonent bi laay xool hadis. hadis mooy aw waxtaan yow déggoo arab yow xanaa déggoo arab. mooy wax hadis lan mooy hadis. da nga moo ko wax n'est-ce pas. mais mooy firi ay wax yow li ngay wax ne hadis la. yaa ngi dégg laxwal hadis. laxwal hadis déggoo ko ci alxuraan. Assane déglu ma Assane. Addis mooy aw wax yow déggoo arab ba pare bëgg a góore. doo dégg Assane lii na yam fii bu ko waxaat feneen. asar la ñuy wax. waaw déglu ma dégg déglul. jëlee nañu asar imaamu addis ci olof. Eh. Eh, Alpha. Alpha déglul addis mooy firi aw waxtaan. yow li ñuy def man ak yow nii sax ay addis la. mais addisul nabawi la ñuy wax ak addisul xutsi wala nga ne alxuraan. da koy leeral ne addisul nabawi. wala hadisul xudsi mais hadis mooy aw waxtaan. loolu ñëpp a ci yem léegi bàyyil ma continuer. bàyyil ma continuer bu ma ruubee bàyyil ma continuer. Mhm. imaamu Saafi kon ñett yi wax noonu lan la. imaamu Saafi nee na. Assane imaamu Saafi fan la ko wax dama lay laaj rek. al ummu nee na al ummu. kitaabul ummu. kitaabul ummu kitaabul ummu li Saafi. ci première page. la ko wax ci ci Saafi. ci première page. dégg léegi ummu moo tax nga foog ne première page la ñuy wax. hee si téere bi ban fan ban page la nekk ma ma yeggale li may wax ba pare man mënu leen ma dagg déglu boo demee mu ne bañay mu ne li may li may bañ ñett yi may yi ma bëgg ci seen àddina mooy bañ a yanu lu ma àttanut. mais sànq daa mel da ne si ubbee bi ubbee bi. waxuma loolu de waxaguma fi ubbi. ba nu mu ko liiree moo baax. ubbi ba la ubbi ba bi ba la bu a wax ubbi ba. billaay yéen kitaabu umu mu naan mu naan ma. mu naan ubbi ba mu naan première page non yeen da ngeen fon léegi mu ne ñaarel ba moy ban mu ne yeeram minde fi minde bu yalla yeb ma yeeram len ñu ne ko ñettel bu man moy kan. mu ne topp tariqa ak lu yow da ngay wax da joxe dalil ban page sas hasan ban page. ban page la nek léegi yunus yow mom, yow mom boye wo ba modéré modéré débat. non parce que bu ngeen ma deglo ay karawat la li ay karawat la da ngeen ma deglu par force. Yunus yow lan la. Oustaz Assane xam nga yow li ngay wax Alpha su waxe tay su waxe ben affaire wallahi alazim dama koy laaj tay li nga wax ni bu ne laajoo ko dara taw lim fi wax ci kaw ba suuf dara taxawu ci. te laajoo ko dara moy mom lim lay laaj yow tonto go motax yow. lim fi wax kaw ba suuf dara taxawu ci la wax ben ben mbir da nga wax ben mbir tay nangoo koo liir nga wax ne fay mi ngi ci imam Shafii ci kitabul umm ma ngi ni tim tere bi ni PDF waa laa laa wala waaye Younus Younus da ngay da ngay mën ngay débat wala oustaz Alpha mooy débat ak yow man damay maanaam tey damay génne ay dalil muy leer doo ko tëj doo noppil damay saxal say dalil damay saxal say dalil bu fekkee ne mais noppil wala nooy dàq say dalil bu fekkee ne kii daa far ngay laajte nga kii ngay laaj ndax daa faram déet mais yow dama ne la noppil wala nga yéegal ñeneen ñi ñoo débat commentaire yi sa ma leen bàyyi de du ma leen bàyyi benn yoon parce que ay nit lañ yéen ba ngeen taalee débat live bi ne leen ko ñëpp jot ñii commentaire nii ngeen doon woo pour ñi ñëw ci live bi ñëw affaire bi neexu leen ngeen bëgg a wax. da ngeen may déglu ma li may wax li si yoon newul ci ñu ñëw ñu ñëw limal la Assane li ma limal la ñetteel bi ñetteel bi nee na nee na topp tariixa tasawuf nee ñetteel boobu laa gën a bëgg imaamu Shaafi waxaat ba tey imaamu Shaafi mu ne mhm. istafatu min min min suufiyati kalimatay nii. nee na man toog bëgg naa. ñetti ñaari baat istafattu mina suufiyati kalimatay nii. bëgg naa ñetti baat a ngi nii bëgg naa ko ci tasawuf ñaari baat kon ñaari baat yoo xam ne yu ma neex la ci tasawuf. fan ko waxee. kitaabu umu laa léegi li ma paree gu ma ci. bàyyil ma ma yeggali ba pare déglu ma rek. léegi mu ne ñett yi ñaari yu gën a bëgg lan la. lii du waxam waa demal. yéen mu ne ñaari baat yi ko gën a neex ci waa tasawuf uh-huh. mooy baat bi ñuy wax ne al waxtu ka sayfi uh-huh. léegi mu ne beneen ba mooy in lam yax yaxtahu maanaam su fekk ñett li muy firi xam nga mooy lan in lam taxtahu yaxtahuka asad del xool li ngeen liir del xool li ngeen liir asad

وانا امام شافعي بروم نينت غيري لا لغي نك امام احمد ابن امبل لا انديل امام احمد تيري الطبقات انا انا انا انا بلا حسن الطبقات حسن بو ديمي الطبقات حسن امام بو ديمي الطبقات حسن كي جزء ثاني كي جزء ثاني دغلول دغلول بو ديمي تي تيري الطبقات دغلول بو ديمي تي تيري الطبقات الطبقات كي جزء ثاني بي كي نياريلي juzu bi muy juzu saani bi. tabaxaat mu ngi wax ne. tabaxaat bu kan. bu waaye imaam Ahmad ibn Hanbal laa wax. waa dabal. ah mais yéen yéen a ngi may dégg de. waa dabal. boo demee mu ne. Hmm. kaana yu azimu. imaam Ahmad. Hmm. yu azimu suufiyatu wa yukrimuhum. imaam Ahmad nee na. Hmm. yi. dama leen ormaal. te di leen di leen teral. ok li nga wax firiwul lool. kaana yu azimu moom da daan màggal. da leen di màggal imaam Ahmad da leen di màggal wax. imaam Ahmad bindul ak tabaqaat déglul déglul. keneen na ko bind. moo tax mu ne kaa. mu ne xaaral bul ne ma ibnu abi yàllaa de. bul ne ma ibnu abi yàllaa de. waaw déglu ma yow dèjà bul ne ma ibnu abi yàllaa de. yow dèjà téere yi xamoo ko ko bind xamoo ñu ko bind. non as yow yaa mën a toppale. billaay xoolal mu ngi mu ngi bëgg a jël affaire bi di loolu da nga ne kaana yu azimu moom imaam Ahmad lay wax ci imaam Ahmad lay wax kaana boobu mu ngi dellu ci imaam Ahmad ok ak tabaqaat du téere imaam Ahmad ok demal bul xole xole wuyu ma bul ma wax kan ma ko bind ibnu abi yaala waxoon naa la bul ma ko fi wax kon xamoo ne xam naa ko waxuma la ibnu abi yaala waaye dama ni la déedéet imaam Ahmad ci boppam mu xoolal imaam Ahmad moo bind téere bi laa la wax donc da nga may laaj ibnu abi yaxla lan la ci non laaj ma ibnu abi yaxla lan la ci parce que wax naa la ko ci commencement bi wax naa la ko déglul asal ma imaam Ahmad bindul téere ak tabaqaat lil eh, maa la waxal léegi ne ibnu abi yaxla nee naa la fexeel bu bu ma ko fi wax nag parce que xam naa ko njëlbeen bi da nga ne woon imaam Ahmad la maa la corrigé nga doog a dem xool bàyyi loolu dama ne maa la ko corrigé man waxuma la ci commence ba ngay commencé di wax naan ku ko bind ma ne la bul ne ma ibnu abi yàlla yaa ngi dégg waaw <laughs> léegi nag kon wax na ne imaam ahmad ibnu ambal da daan hmm. da suuf yoon yi da leen daan teral ban page léegi yukrimuhum lan la léegi yukrimuhum yukrimuhum lu muy firi déglu ma eh, déglu sama temps la sama temps la déglu ma déglu ma lan lay firi la yukrimuhum lu muy firi laa wax. wax ji ban page la nekk d' abord. yukrimuhum laa wax baatu arab la. mooy taral page lu muy firi. da di taral mais ban page la nekk li nga wax. léegi nag bàyyil ma demaat yow yow bëggoo dégg. nga demaat Ibrahima xalaani si ban page la ci li nga wax ban page la nekk ci li nga wax. du ngeen ma déglu de waaye danaa leen indi sax mbindu Ibnu Taymiya léegi nag bàyyil ma ba ñooñu ma indi la ci Ibnu Taymiya. <laughs> Ah, بعد ما يندي لابن تيمية لان لا وقت تاسو وانا وانا وانا لا اله الا الله ابن تيمية بعد ما يجي مجموع فتاوى واو بو ابن تيمية تي بفهم بوم بند بفهم نعم نعم الصوفي في الحقيقة نوع من الصديقين اها وهو صديق الذي اختز بالجود والعبادة على الوجه الذي اجتهد فيه كما يقال صديق الأمراء وصديق العلماء وهو أخص من الصديق المطلق ودون كامل الصديق المطلق من الصحابة بودي ميت مجمع الفتاوى نون لا كفوا واحد دما ديكون جن وقت بين بان جن نيوم دي بان باج بان باج دوما لا كوا قوم باج بيتو دوما لا كوا منو ملا توغل يكال لا دلا سخلال دوما لا كوا دفال دما نقول سجيكو يوم تيمية بودي يو بينو كتا بينو كو بينو كو يوتيوب xaw ma YouTube ngeen dugg xaw ma Google bind ko léegi mu génneel la ko. waaw baax na waa jazakallah xeer li wax nag jàpp ci rek may ma li wax fi yëpp. léegi nag Ibnul wax. non non la soxla àgg nga ci kay léegi may ñu may wax la guma la Ibnu Qayyim jàpp ci Assane jàpp ci nag may ma nag. Assane li ma noté bëri may ma nag Assane. ok Assane. asan indi nga ay waxu boroomi xam-xam tuddu ga ñu bari bari bari ne di wax na di wax na di wax na di wax na yow tuddu nga fi ba tuddu ay suyuti tuddu nga fi ba tuddu ibnu qudama tuddu ibnu sina ñi ñepp seen wax indi woko waxu imam malik la indi ak waxu deguma rek deguma rek parce que yeneen may doga may mo ko wax imam malik dem ci shafié dem ci ahmad ibn ambal bu ngeen ma continuer Eh, lim bi Assane lii du dem xam nga lim bi naka la continuer lim bi xam nga fu mu commencé hmm. imam Malik Abu Hanifa imam Shafi Abu Hanifa ta ñetti ñooñu ni mu xastalee laa ko indee ñetti ñooñu ñëpp indi naa leen déglu leen Oustaz Assane Oustaz Assane defal daal léegi xam nga lu ma bëgg xam nga lu ma bëgg hmm. ñii déglu dégg nañ hmm. ñi bëgg a dégg dégg nañ la ma bëgg mooy ma daanelee benn kese bàyyi leen ma toog nii croisé samay bras ngeen daj ba doyal ma dégluwaat. non Assane déedéet Assane bàyyi ma Assane li nga wax may naa la. Assane da ngay da ngay def ndànk dañuy partagé affaire bi. waaye léegi lu tax indeegu leen benn dalil buy weddi tasawuf yéen. man maa ngi leen dalil yi ma indi moo ngeen di jéem a daji. ci laa nekk indi alhamdulilah maa ngi lay déglu. waaw ci laa nekk may ma rek maa ngi lay déglu. man man nga maa may ma ma wax balaa ngay commencé. déedéet déedéet yow doo wax yow doo fi wax dara. non man damay wax damay modéré defal ndànk damay wax mais mënoo maa tee wax Assane nag sa modéré sa ma dafa dafa xajam ok Moussa Amzane nag yow ruube bii ngay wax nag yaa koy def yaa ngi ruube yow nga wax ma li ma wax jox ma sa kàddu ci appel yi man ak yow maanaam tey ma la man man ma ne ma man du ma wax waaw mais damay modéré maanaam tey modéré bi may def waaw da nga may déglu ax yi da nga may déglu sax yow lan moo tax yow dalil bu ma joxee wax téere doo yow yow Moussa Amzane déglul ngir yàlla déglul déglul ax yi defal ndànk bul mer laa tax dab yaa ax yi defal dank yow instant bi ni tay da nga ñëkkal lim téré imam mal mu wakka bu Malik. légui damay wax dama leen di wax ñi nga xamne ñi ngi sétan live bi. wa mbokk yi ngi live bi sétan ngi sétan live bi yeen su fekkente ne bëgg nañ ma ko wax su fekkee ne yéen ngeen di déglu wax leen ko mu noppi. saa yu bëgg ngeen ma ko wax leen su ngeen bëggul ma noppi ma continué ngeen wax ko waay. parce que ñu ngi def jaay naa boleh ngay forog boleh non non man faruma de man faruma de. non non gars yi loolu lañ so léegi mel. non non cheikh bi man faruma xam nga moom dafa lim ay téere. yàlla def na téere waaw foofu laay ñëw jàpp même rek foofu laay ñëw. bismillah bismillah bismillah. Assane dabul fàtte sama hadis bi de. Assane. hadisul xudsi bi. Assane nit daa war a am al amaana al ilmiya. déet al amaana amaana balaa ngay am ilmiya nga am ko ci sa jëmm fii jasadi ba. xanaa bëggoon wax nag Assane mais ma Assane. yow ya, da nga ñëk wax ab hadith hadith bi bobu ba léegi nanguwoo ko liir wa may rek ma liir na sama hadith may ma may ma sama hadith nga ne ma hadith bi baxul dina ñëw nga ne hadith bi baxul ok man la hadith bi nga yor bobu ba léegi nanguwoo liir sama xadis boobu ba léegi nangu ok ñepp ñu ngi ñepp ñëpp ñu ngi toog lir liir sama xadis boobu ban hadis ban hadis mooy hadis bi nga wax yow hadis bi ma wax ko nga deg ko ci ba pare diko wax yak ko manela wax ko do koy ni man lancer la ci def nga ma koy ko Oustaz Alpha do ma magut so ma suma la su suma la magut ma ma man gëno ma xam li ñi def yow hadis bi man mako indi man ma indi hadis bi ba nga deg ko nga nan ma hadis bi nañ ko waxe ni wala hadis bi lañ ko defé ni hadis bi kay yow mi wax ne dafa dafa wéru ma wax ko nga deg ko lay asan léegi may naa la léegi Assane ñëpp a ñuy déglu trois mille et quelque Assane liiral xadis bi balaa ju jàll wax imam Malik liiral xadis bi ubbil ubbil sa micro. am na ubbil micro de. Assane ubbil ubbil baa ko ubbi ubbi liiral xadis bi Assane liiral xadis bi. mbokk yi tapote leen bi gars yi ñu ngi may signaler de dafal ndànk Oustaz Assane da ngay ubbi sa micro xadis bi moom xadis bu muy wax noonu tey. non non xaaral na ko liir rek bu ko may dara asal liiral. dëgg mu ne bu ko may dara. sama xadis nga may la asal liiral xadis bi li may question bi asal liiral xadis bi. ban modérateur sànq moo moo moo moo moo lii moo tëj micro am dafa ndànk micro modérateur bi dinaa xam incha allah xaaral. asal liiral xadis bi yow yaa ko yaa ñu ko dig asal yaa dig ni di nga liir xadis bi asal liiral xadis bi. ah mbokk yi ragal leen yàlla man faruma fenn wallahi alazim ci dëgg laay far maanaam Oustaz Assane dafa liim ay téere. téere yooyu mu lim te yàlla def na ne maa ngi ko yore mais moom dafa wax ne page cent cent quatre vingt dix ba cent quatre vingt dix sept wax jooju mi ngi faj ci waxu imaamu Malik léegi moom war ko koo liiral tey pour dëggalal ko bu fekkee ne tey mi ngi fa. war ko koo liiral tey bu fekkee ne tey nekku fa. nangu ko nangu ko. léegi balaa ñuy dem balaa ñuy dem léegi balaa balaa ngay sànq sax dafa dàq imaam Malik lu tax mu ne waaw léegi tey si imaam Malik ngeen bëgg a taxaw lu tax taxaw leen ci alxuraan ak sunna ba pare muy indi ay waxu Shafi'i imaam Ahmad ak ku nekk hmm. naam léegi lool loolu noonu Ousmane Assane dafa ndànk bu ñu tënkoo ci yow débat ma ak yow man débat waxumal dañuy débat liñ la wax da nga koy may muy jafandukaay Yunus da nga koy may ak temps bu muy yóbbu Assane da yaa ngi yéen a ngi tëj bu leen ko tëjee su ma su ma xoolee ku tëj micro danaa la wàcce dama lay dama lay wàccee live ko seetaan bu leen tëj micro bu man naa ko tëj balaa ma ko tëj dama ko koy wax bu leen ko tëj bu leen tëj ngir yàlla képp tëj micro dinaa la dindi ok Assane yaa ñu digoon ñëpp di dégg nga ne ko dig waaw d'accord Assane lii ran ñu xadis léegi nangu naa léegi nangu naa damay lire hadis bi waaye yow nangu nga ne mënoo addis ba xamoo ko dèjà. mën naa ko wallaahi mën naa ko ni ma ko liiree. mais liir ko boo ko liiree yàq. doo ko liir maa ngi gën ci borom maa ngi gën ci borom. liiral maa ngi gën ci borom suuf. riwaay bu nekk ci dayla mi moom laa liir te noonu. liiral nan la ko waxee sirrun min sirri. min sirri. dégguma dégguma la de. sirrun min sirri. dégguma la. al ikhlaasu sirrun min sirri riwaay dayla mi. riwaaya. Hmm? billahi du loolu. Oh, du loolu. déglu ma asal demal vérifier balaa nga naan du noonu. riwaaya billahi wallahi du noonu maa ngi téye hadith yi. ngi ko asal asal neel yow li nga yor deful loolu man dama la indil riwaaya day la mi riwaaya day la mi loolu la bind mu ngi nii moom la indi dama nga xool fekkee du noonu nga ne du noonu. mu ne qalba man ahbabtuhu min ibadi nii la ko indi déedéet. du léegi bàyyil man ma liiral léegi yow léegi nangul ma nangul benn affaire ma liiral loo léegi nangul benn affaire ma liiral loo parce que sànq ba nga may weddi lu ma la wax boo ma weddee rek ma ne la d'accord naa ok liiral liiral léegi d'accord leen na xamoo ko benn riwaay indi wul ko liiral noonu la riwaay day la loolu la indi génne ko ci écran bi génne ko ci écran bi mu liir génne ko ci écran bi teg ko ci écran bi riwaay day la mi boobu man ma juum génne ko mu ngi acca génne ko ci écran bi benn riwaay andiwut loolu ayca maa ngi xaar soo ko indiwoon nag après man ma indi la addis bi léegi ñu taw ah, te ñu ñaan laan. bismillah. yow kay yaa ngi ko tiimoon boobu léegi kay yow kay jarul yàqu. jegeel jegeel nga zoom ko. ñëwul de Oustaz Yunus yaa ngi gis gis nga ñëwul de. ñëwul de. naka nga yoree tablette jël ko sànni ko ca gannaaw gannaaw montagne ba. yorul tablette ordinateur la Oustaz Assane dafa ndànk. waaw léegi bàyyil ma indi addis léegi bàyyil ma indi addis bi. man xadis naa laa indil man man naa ma si débat man damay. wax indi indil indil. mooy li nga xam ne si tey alfa moom la wax. al al al ikhlaas waaw. al ikhlaasu min sirrin istawdaatuhu qalbun man ahbabtu min ibaadi ñiy dégg yéen dégg bu dee loolu arab la yàlla bu ma fekkee suba. waaw ok Assane wallaay Assane wuy ma billaahi du loolu. billaahi du loolu. Assane barke yow lii alfa ba wax sax moo gën a jege li nga wax. Assane liiral li nga yor Assane liiral li waa léegi d'accord moom moo ma doon dagg dama ko doon liir mu ne moom day ñëw. léegi yow. yow li alfa wax sax moo gën a yenu maanaa li nga wax. min qalbi abdun amut ci arab min ya, qalbi ya. eh waxuma ya, abdun de eh ragal yàlla akhi subhanallah abdun fa la ko waxe subhanallah alazim <laughs> asan asan ragal yàlla nak asan ragal liral asan liral li nga yor asan liral li nga yor japp ci abdun abdun kay dégg ma wax ko wax du ibadi yunus yunus o oh. du ibadi billahi du ibadi asan ben riwaya waxul loolu gis nga hadith bi riwaaya la jang dem di riwaya yëpp la genné Assane waxoo dëgg riwaaya day na mi min ibaad yi wax. ok léegi Assane ah, Oustaz Assane li a yomb. li gën a yomb li yomb tey jox ñu xadis bi yow. jox ñu xadis bi nekk ci man maa ngi tiim 40 xadis xudsi yu xam ne si maa ngi ko tiim wax ma kan moo ko solo ak fan la nekk wax ma ko ma génne ko kay si écran bi. ubbi sa micro ubbi sa micro nga liir xadis bi. non mënuñu ko ubbi yaa ko ubbi. maa xaw ma ubbi ko ubbi ko Younus yow yaa ubbi yow Xasan yaa ubbi envoyé naa invitation. Xasan ubbi sa bi eh, modérateur na kenn ubbi micro naka naka kenn ubbi. <laughs> Xasan leer waa liiral xadis bi ubbi sa micro nga liir xadis bi. voilà micro leen ko du affiché ci écran bi nekku fi léegi nag bàyyi ma liiral xadis ok liiral xadis bi. ma leen ne leen jël leen nag. jël leen note mhm. hadis bi xam nga lan la wax mhm. ma defal la ko benn par benn mu ne la mhm. al ixlaasu sirrun min asraari gis nga min asraari la asraari min asraari ri. da koy xëcc lu tax waxoo ko woon non yow laay wax fekkee da ko indi jamu. yaa indi jamo bi da koy xëcc lu la ko teree woon wax yow ba bay ni njaaxum yi nga wax nii njaaxum yi nga wax nii léegi lu ko ci benn du njaaxum benn la téere li nga waxoon fii yëpp dara baaxu ci. wallaahi benn léegi continué continué. waxoon nga fii istawdaw du istawdaw. waxuma xam nga lan la. waxuma lool de. waxuma la loo wax. istawdaatuhu. ah. sax moo li nga wax nii. li eh, war a waxuma lool de. istawdaatuhu laa wax. du loolu nag. yooloo du loolu billaay du loolu. <laughs> barke alxuraan du loolu du alxuraan. du alxuraan du alxuraan lii. continué. déedéet du du alxuraan man maa ne barke alxuraan laa la wax man maa wàtte alxuraan ne li nga wax du loolu. waaye continué continué continué. astaw iduhu lañ wax astaw iduhu dégg nga. laa ilaha illallah. xalba léegi mu ne la xalba. xam nga lan la wax. xalba mm-hmm. man axbabtu min ibaadi. wasalaamualeykum wa rahmatullah. léegi nga ne Yunus waxul ibaadi. nga ne man waxul ibaadi. yaa li ngeen fi wax dara baaxu fi nga naan ma ibaadi yow yaa ne léegi ibaadi amu ci yaa ko léegi lii laa léegi wax naa léegi léegi wax naa ba ngeen dégg ko jaaraat leen ci wax naa ko ba ngeen dégg ko jaaraat leen ci ku ci mën ok legi bi nga yor asat bi nga yor ci ban téere la nekk non subhanallah alazim bi nga yor asat ban téere la nekk ijil micro bi ta nga indil ma lima wax léegi nii jaaraat ci ok asan asan asan man indi na la reference man nee la mu ngi ci ihya ulumuddin ak riwaya daylami bu dee Ihya Ulumuddin page 4 mujallad kat volume 4 page. Eh, eh, ubbi leen micro ubbi sa micro mën nga ubbi sa micro ubbi sa micro kenn tëju ko man tëju ma sa micro ubbi ko. ubbi ko Assane ko yaa ko mën a ubbi na ko ubbi ubbi mu dem laalal rek mu dem Assane Assane Assane ok léegi man indi naa la page. demal ci waaw fi ngay Oustaz fengai yaa ngi may dégg fi ngay taale fi ngay fayee sa caméra foofu dina la woon fi ngay taale sa micro balaa ngay taale sa caméra ta léegi xam na ko xam na xam sa micro léegi asan dama la ñaan ngir yàlla li nga wax ni wax ba page bi ak téere li nga wax li nga wax ni indil page bi ak téere gis naa modérateur bu tëj bu tëj li am sànq daaj ji xaw ma nan boo ko defaatee naa la voilà yéen xoolal yéenay tëj sama micro bi tëj sama caméra ba pare di ma ci sonal te man xaw ma ci lii lu bari. man caméra kenn mënu ko tëj sa caméra yaa ko mën tëjal sa bopp. waaye bar yow yaa ngi gis maa ngi toog dem nii ba pare sama loxo yi xanaa dama koy wax mu tëj. sa caméra yaa ko mën tëjal sa bopp saa nañu waa léegi d'accord léegi addis bii ma wax. ngeen ne yen benn la. léegi jaaraat leen ci comme que xam ngeen ko. Assane balaa jaaraat li nga wax indil. te yow addis yi lim nga yow da ngaa da ngaa da weddi sa bopp xam nga foo weddee sa bopp yow da ngaa waxoon ne addis bi wérul ba pare dem indi téere yëpp yi ko xam ne moo wax wéral addis ba tey warul xam naa ni warul ba tey warul léegi lan la addis wax asan lii nga liir page bi asan lii léegi liiral ihyaam ulumi diin boobu noonu waxal lan moo ci nekk ak ba mu waxee addis bi lu mu ca teg asan bi nga wax nee nga daa wuuteeg man bi nga wax indil téere bi ak page bi nii laa soxla asan déggal mun naa indi téere bi yow xoolal dama lay wax ma ni saal dama laa wax léegi ca commencement ba ma indil la addis nga taxaw ne hadis ba wérut indi ci lu nekk wax a wax a wax a wax ba a dee. ma ne génnal foofu nga ne doo fa génn ba coincé sa bopp nga indi hadis ba xamoo ndeke hadis bi man soo continué woon. danaa rafet jox ne yow xam nga hadis bi nga liir lii ñu fay si micro da ngay déglu bi nga liir indil page bi ak téere bi ñu lay soxla. yow yaa ngi ni indi fi ay téere yoo xam ne jàng nga ko fii te gis nga hadis bi ba bëgg maa laajaat téere te yow nee nga indi nga téere yi. Assane Assane benn affaire bii laa leen di wax sama condition la nag te du ci dellu ginnaaw live bi ñëpp ak may dégg xam nañ fi mbir mi féetee su fekkente ne tontuwu leen ma ci benn baat bii li ngeen may wax yëpp man ci def su ngeen ma tontuwul ma wàcc li nga wax man ngeen ma golo golo Assane riwaay bi nga indi su ngeen ma tontuwul ci lii ma wàcc live bi Assane riwaay bi nga wax indil ban la ak ban page waa léegi daf dama dama bëgg benn yombal benn mbir waaw te dinaa ko def lu ma wax dinaa ko def mhm. Ousal. soo ma indilee. waaw kay mu ngi nii. tey rek ngeen di dee. non non non Yunus Yunus dindil Yunus Yunus Yunus dindil moom mooy indi Yunus dindil bul dindi nii de bul ko dindi de barke alquraani karim tey ngeen di dee Yunus Yunus bu yàq na leer Yunus moom moo war a indi Yunus dindil waay moom moo war a indi Yunus déedéet déedéet na na liir lii na liir lii li ngeen doon liir bu dee dëgg la liiral lii Yunus liiral mu gaaw déet bu ko dindi de day ngeen di dee. yéen da ngeen a gasal seen bopp kàmb dugal ci seen bopp. addis baa ngi nii Xasan defal ndànk defal ndànk defal ndànk. ibaadihi Oustaz Alpha. ibaadihi bi nga doon wax ibaadihi bi nga doon wax léegi. xool ko fii ba xam ndax gis nga ko. waaye yow sànq yow xam nga yow sànq da ngaa weddi li ma liir damaa liir min ibaadi. nga ne man man abdullah wax nga ne abdullah wax Oustaz di Xasan. ma nga yaa defal ndànk defal ndànk. li ngeen liir dara baaxu ci. Younus génn ci Younus dara. Oustaz Xasan yaa ma dàq liir loolu fii sax ma lii dama si génn dafa ah yéen a yee génn ci <laughs> lii addis baa ngi nii yow ibaadihi bi nga doon wax Oustaz Alpha Ba Oustaz Alpha Ba ibaadihi bi génneel ma ko fii axbabtu bi nga doon wax fii ah xoolal yaa yee dindi ko mais comme que dëgg la kay yéen a wax dëgg bu leen ko dindi. bi nga wax indil page dëgg la xoolal kii moom kii mu naan ma Assane tu as perdu yow yow dama yaakaar yi ak yi defal ndànk. indil page bi indil page bi bi. yow instant bi ba tey Alpha loolu la lay laaj. maanaam tey man dama bëgg a modéré. mais yow instant bi wallaahi la man man yow doo déglu da ngay déglu bu tey da ngay wax da ngay déglu ak yi. du ay dalil di leen ko di ko jóoral ñoo xam ne. xam nga loolu yow instant wax ne tey fan la nekk defal ndànk yow sànq da nga. léegi bàyyi nga wax nga waaye léegi bàyyil ma jox la bàyyil ma jox la bii moom wàccaale léegi bàyyil ma jox la bàyyil ma jox la preuve yi bàyyil ma jox la bàyyil ma wax la bàyyi leen ma jox leen preuve yi dalil yi ñii amul problème bu nañ def contre dix may naa leen ndigal ubbi leen laay bi ngeen dugal seen cinq personnes yéen a ngi may dégg yéen ñi ci suuf yéen a ngi may dégg ma indil ko preuve yi comme dafa wax ma indil ko preuve yi bu dee yéen a ngi may dégg wax leen parce que man li may wax déggatuma dara yéen may dégg waaw kay riwaaya bii riwaayatu imaam Ahmad la Abu Dawud indi na ko. ba riwaaya. riwaayatu Ahmad Abu Dawud indi na ko. ban la ban la. yaa ngi dégg. ban Abu Dawud indi. yow nekkoo di laaj addis bi fan la nekk. ok xadis boobu ok ok. léegi yéen a ngi ut renfort ah renfort mu ñëw. <laughs> non non non amul amul eh, Yunus wàcceel. ragaluma loolu Yunus wàcceel wàcceel. non non lii modérateur yi ñoo leen di eh, benn ci mën a am. da ngeen indi ay renfort. te te te yéen yéen a kenn du fi yëg yéen ko waxoon. wàcceel nañ ko oh, Xasan yow yow oh. instant bi ni tey wallaahi lazim laa la waatal yow si sa bopp yow. xam nga ne yow bëggoo dëgg leer parce que yow boo bëggee dëgg leer defal ndànk axi dañoo waxoon doon ala shurutihim defal ndànk yow si boppam tey dangaa wax ne lépp loo wax di nga ko indi liir wax fu mu nekk dangaa wax xadis bi tey alfa ne la xadis bi tey ni ma ko waxee d'accord naa nekkul noonu Mouhamed téere la nekk ban page déglu ma bu ma dagg bu ma dagg bu bu ma dagg yàlla bu dagg axi léegi yow sànq dangaa wax benn waxu imam Malik nga ne mi ngi si cent ba 197 yow nangoo ko liir nangoo man ma liir ko mu laaj la si ay preuve yu bari yu nga xam ne si tey yow nangoo woosee ñëw léegi yow dangaa war a ñëw foofu noonu bu fekkee ne yow tey li ngay wax nii nii tey man dama lay dëggal de yow laay dëggal tey bu fekkee ne yow li nga wax dëgg la mi ci mi ci mu wàq bu Malick yow laay dëggal daal ne ah lii de sa Assane moo ko wax waaye mi ngi ci mu wàq bu fekkee ne nekk fa tey ñu daan ne ah Oustaz moo am dëgg parce que nee na la tey baatu tasawuf mënoo ko gis si mu wàq léegi yow bo avant boobu noonu gis nga si foofu dangaa tourné dàq lii nga xam ne ni tey moom mooy waxu imam Malick daan ne léegi dañuy dellu ci alxuraan ak sunna léegi dañ dellu ci waxu yàlla ak waxu yonantu bi bu ko defé tay ñu baña dugg ci waxu borom xam-xam yi ngeen bañ ci dugg yeen ñaar loolu mom moy li nga xam ci si mom ngeen delu ngeen delu ci aya ak hadith nga indi aya wala hadith nga saxal ne tasawuf tay lu saxla ci li nga indi aya bi ne ki moko firé ni ki moko firé ni mom mu indi loolu parce que débat bi mi ngi guddi il fait minuit maintenant il fait minuit tay 9 h et demi lañ commencé won ba tay débat lima len may xam ngeen lima len may xam ngeen ne kenn du len ko may yeen kenen mënul len ko may non non yow da nga dëgg man maa moy ñi waxante kaddu yo xamne yu dëgër la ngeen ëlbate ko def leneen lu dul loolu. ba léegi man amoo bi benn benn bu ma def. dix minutes taw oo ko leen. Oustaz indi indi référence bi indi référence xadis jàpp ci jàpp ci ngir yàlla ñu ñu continuer ko ñu dem. waaw kay ayo ah, yow waaw yow moom bi yoon moom nangu nga loolu moom d'accord na léegi riwaaye bii. waaw riwaaye Imam Ahmad la. waaw danaa la limal ñu ko indi. Abu Daawud indi na ko. waaw boo demee ci Tabaraani indi na ko. Mhm. boo demee ci Nasuru Diinil Albani. Mhm. indi na hadis bi ci kitaabu tawhid ci kitaabu tawhid <laughs> déglu ma rek léegi beneen ba boo demee ci kitaabu tawhid kitaabu tawhid kañ la nekk référence ci téere xadis Assane kañ la kitaabu tawhid nekk référence ci téere wallaay tallaay non gis nga yéen waaye léegi boobu nga ci taamu daal yow yow yaa ngi ko ci léegi yeneen yi nag bàyyi nga ko non Oustaz booba yéen da ngeen di tappale de waaw continue continue ak fan da ngeen tappale de léegi hmm? yow lima la laaj yeb tonto ko ci ben yow mom dag ma wara geureum ndax loma ma laaj tontu yow li la laaj tontoo ci dara dara dara indi nga sa ini indi nga sa référence ok mhm. Assane reference yi nga indi fi yeb wallahi bu ko indi fi nga taf amu fa mais man yoruma laay bi moma laay bi nak la lay taf tafal tafal fi nga nek amu fa la lay taf li nga wax ni fofu hadith mu nga fa wallahi newu fa mais sama koy taf léegi fan la koy taf fan la koy taf والله ميما والله ليغا واخني حديث بي نيوفو امول بولا نيهي باسكو يين ميني واخ نيك يين ليه حديث بن اوفا اصلا نوفا وا مي حديث بكم خم نه حديث بي امنا كاي ليغي نينا نوفا دو بروبليم دا ياو گم نغا كو ياو گم حديث بي استاد وادي لو ياو گم نغا حديث بي اصلا بول ياك بول ياك دا خسا كارت كي غاي راف مي ياو گم حديث بي با دون كو واخ بي ديكو ياك ياو يونس نين كو ياك ماي ديفار حديث بي نين ليم في تيري نيك ملي مار يينن تيري غاني نيكو في دا كو نيكو با خم نه حديث بام اصلا ميم اصلا حديث بي اندي ريفرنس والله نوفا ورب الكعبه نولتي imaam Ahmad. léegi léegi léegi Yunus nee na Yunus nee na la Yunus nee na hadis bi newul foofu. Assane déglu ma newul ci Abu Daawud bi nga wax. Eh, waxuma loolu de yow mii wax def nii parce que man damaa gis modérateur bi bi nga xam ne si mooy mooy mooy def si kaw laay ma lool de man man tontu ma man man si boppam tey. damay yéen commencé woo leen woon nii de. yéen commencé woo leen woon nii de. waaye léegi dama lay wax. dama lay wax yow hadis yi waaw damay. Assane référence yi nga indi mais wax ko rek lañ may mënoo ko rek di wax. dama koy daane jox la dama koy daane jox la dama koy daane jox la. dama koy daane jox la. Hmm. dama koy daane jox la. Hmm. mën nga continuer. du mat sax une minute. maa la ko ñaan ma joxaat la. Hmm. mooy dama indi addis bi. premièrement. nga taxaw ne addis ba wérul indi ñu ko wéradil. waaw ma indi muy benn xaar xaar. ñaari nit nga ma fi limal ne ñoo ko weddi. Euh, maa ngi ko bind nii kenn ki nga ne. Euh, amna ko fi waxon fi de ah, waxon nga ko fi legi moom naa ko gis naa ko gis naa ko gis legi nga limal ma fi ñaar ne ñoko weddi wala mhm. mu ngi ni nga ne ma ibnul al arabi mhm. te ibnul al arabi safan bi la wax te neena la dama koy wax nga ne ma do mako may mhm. nga waxan ne ma ak ci Ihya Ulumi Diin am fa léegi léegi nag ma ñëw ma ñëw may la ma indi addis bi may naa la safaan wa waaw d' accord léegi damaa indi addis ah. nga ne ma addis ba wérul ma la d' nga indil ma ñaar ñi kenn sax nga ma indil muy ibnul arabi nga ne ma neena wër ma laaj la ban hadith nan la ko waxe nga ne wër bo ba legi wax nga ko lopp 100 fois yo xamne ben benn baaxu ci sa renfort bi jog ne dalay dalay dimbali mu wax ko nu gëna ñaaw nan ko waxe ma waat hadith te yow lim nga téré yi nga xamne ñoo indi hadith bi kon xam nga ne hadith bi amna te yow bu ñëkk ba da nga wax ne hadith bi amul ok léegi asal may ñu dem te yow limaat nga nga ëlbatikuwaat limaat yeneen léegi may ñu dem léegi téere nga tudd yëpp téere nga tudd yëpp xadis bi newu fa xadis ba fa léegi nag nga dem ba ci yàgg nga tourné waat wax wax ji taxaw ne artiste boobu mu ngi ci mu ngi ci fee te yaa waxoon ne wérul amul waa léegi grand mais oustaz Alpha waa cohérent baax na léegi baax na léegi déglu déglu Assane xadis bi nga tudd yow benn waxoon naa la boo coupé sama micro ma wàcc soo ko coupé waatee ma wàcc. bul wàcc léegi may ma da parce que wax naa ba bëgg a dee li may wax tegu leen fi dara. ba pare man toog fi di laaj nga léegi nag bu la neexee ma ne yàlla nee na nañ julli nga ne yàlla waxu ko lu ci lu ma ci mën. ok yow mënoo yow miy teggi dara doo teg dara yow indi woo addis. indi woo aaya alquran billahi indee goo aaya indee goo addis mais alpha naka la ñuy débat ci koo xam ne bés bu seen mu wax yow doo indi aaya doo indi addis bëgg ñuy débat nga bëgg yàquloo sama temps damay quitté. ok bu fekkente ne kii di wax naan Assane amoo niveau. yow de yërëmoo ñi kon xanaa da ngaa bëgg ma lekk bu yàq débat bi non damay quitté damay quitté parce que mënumaa nekk ci débat boo xam ne li ngeen def neexu. baaxul sa Assane nag essayé nag sa Assane defal ndànk. waaw su yeboo daw d' accord. mais ni ñu boo quitté rek mooy da incha allah léegi léegi xoolal bëggewuñ ko nii a ndànk. defal ndànk defal ndànk bëggewuñ ko nii sànq ba léegi képp kuy xam ne débat bi euh, équilibré wul. te indil naa ko la ma laajoon bindal ma fii Assane Kiteel. Assane defal def ko ay kër yu ruus nag ma de ma gis. su bëree rek mu a yow Assane yow Assane dëgg moo la ñor wala yow nit la ñor laay laaj. non nit ñee ma ñor non nit ñee ma ñor damay wàcc. <laughs> biñ laa wàcc bu wàcc defal ndànk affaire defal ndànk affaire léegi damay ci li ma la wax Assane déglul ya Alpha Ba tontul ci li ma la wax. da ngay déglu Assane da nga déglu Assane. da nga déglu Assane lañ yàlla Assane Assane defal nga ngir yàlla axi déglul déglul da ngay déglu déglu sa sa Alpha déglu ngir yàlla axi. nan laay déglu ku waxul dara. defal ndànk yow si boppam tey débat ba muy commencé Alpha daf la laaj ay question pour nga indi ay dalil. ma tontu ko ma déglu ma déglu ma. waaw ah, man nga maa déglu man damay déglu damay déglu sa waay dangay déglu axi déglul. non da ngay continuer mais dama bëgg ñu wax lii dëgg rek. yow sànq ba léegi nee nga may ñu lu wax waaye yow yow da ngay da ngay génn débat bi wax ay mbir yu nga xam na si ni tey. lu ma wax lu dul dëgg dinaa ko soxla wuñ ko si débat bi. Alpha maanaam sax kii nii Assane déglu sax Alpha day déglu da ngay déglu. déglu lu yaax mën nga ma déglu wala mënoo ma déglu ngir yàlla déglu ma. man dama ne mënu ma la déglu parce que yow waxoo. yow waroo wax. waxuma wax man man may modéré yow même booy wax sax amooloo ba la alpha di yàq néew moo tane. waaw ñu fay sa sa la muy yàq na la sax. waaw la alpha di wax di ko yàq na la. moo ngay wax. Assane man maay wax déglu ma man maay wax léegi. waaw ca bisimilah. ok très bii nga indi. asraari amul sirri moo xoolal billaay xaaral ma wàcc non yéen da ngeen di tàngal xol quoi parce que yéen da ngeen di wax dara te du doon dëgg du doon dëgg war na yàlla yow yow yow ay addis bi waxal boobu ba léegi ma waxal la ko pare nga bëgg ma koo jiñ naan ma da nga yàq addis yow war nga maa yàq addis yow waa dëgg waa garaaw waa garaaw léegi xadis bi nga wax yow war nga maa yàq addis xadis bi nekkul ci Abu Daawuda bi nga wax nekkul ci Musnad Imam Ahmad waaw yow waaw waaw xaaral ma wàcc xaaral ma wàcc juróomi place day yéegaat Assane Assane Alpha ndànk day yéegaat parce que instant bii nii tey moom. daw na dafa bëgg a daw daw na ndànk bu daw na ñëw rek. loolu <laughs> lii la bëggoon quoi lii la doon cherché. moo dama koy envoyé invitation pour mu ñëw defal ndànk xam nga moom dafa wax ne man damay son maanaam tey. في amaanatul almiya moom dafa tudd ay téere. lim na buluugul maram lim na riyaadu soolixiin riyaadu soolixiin ana mu sax ngeen gis yéen mbokk yi riyaadu soolixiin ana mu sax fan laa ko fekk. non Younus débat bi jarul ngeen leeral dara Assane daw na ko waa. dafa ndànk riyaadu soolixiin bi mu ma yore volume 1 ak volume 2. ok buluugul maram mu woppa moom ba tey moom dafa ne day liir li nekk si mu woppa. nangu koo liir parce que passe bi man liir naa ko. wala waaxi laa dara nekku si. Mm-hmm. mais defal ndànk moom na ñëw non du dawee noonu day ñëw. <laughs> ba pare moom yi nga yow yi nga war a laaj yëpp sax laajoo ko ko quoi. si si li ñu waxante yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñoom bu ñuy bu ñuy def zikr li nga xam na si mooy jawratul kamal day teew. Mm-hmm. loolu wax na ko. Mm-hmm. mais na na ñëw Oustaz Assane nag digle wuñu woon lii al muslimuuna ala shurutihim waxoo da ngaa wax ne fii ba fajar doo daw ñëwal. yow xamoo tasawuf lii da mu ñëw daw na. <laughs> <laughs> non dama waat demande mu ñëw defal ndànk moom nekku fi sax il faut ma lii ko ma mu ñëw. non kii di ñëwaat bu soxla sa kii da koo programme bu yàgg. xaama woo ko xaama woo ko dafa mel daf ma bloqué. non ñu dañ ko Alhamdulillah, alhamdulilah ñu doon déglu moom vraiment dafuñu quoi xam nañ ni laaj nañ ko fi ay page mënu ko indi laaj nañ ko fi ay dalil mënu ko fi comme lii mooy tasawuf tasawuf day wax sans dalil day wax sans indi preuve day wax sans dellu ci delluwaay ñoo la gis nga dafa bëri la fi indi may nit ñi ñu wax bëgg a wax mu fël sa gémmiñ indi wu fi dara luñ ko laaj ci ay page mënu koo indi lu mu tudd mënu koo delloo ci téere mënu delloo ci page xadis yu fi indi amul benn xadis bu ci wër te nanguwul indi ñoom ñoo ko wër tudd na fi ay téere téere yooyu amul leen nu mu ci wër xadis boobu mu ngi ci Abu Daawud bu ngi fee dara newu comme tasawuf ñu ngi nii lii mooy tasawuf gis mu ci moom mooy daw na débat bi gars yi nee na ko wàccal parce que xam na fu ñu ko téye foofu mënu faa génn waaw xam nañ fu ñu ko faa génn moo tax nee na daw dem yoon. yaa ngi gisuma sa sa lii de. am na benn suufi suufi bi nga xam mënu sax liir <laughs> am na benn suufi